toute, toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. waaw séminaire bi li ko waral mooy comme li ma wax sànq rek pour dajale euh, yi ak euh, nit ñi nga xam en fait ñom ñep seen xel ak seen xalat dafa tënku ci euh fexelu suxali suñu réew ndax Sénégal euh, réew la mo xamné ne am na indépendance bu yagg waaye euh, bu ñu seetee euh, dafa dafa dafa dellu ginnaaw ba mu ëpp par rapport ak réew yi nga xam ne moom la tollool euh, te it boo xoolee li nga xam ne mooy personnel politique bi nekk Sénégal dafa nekk personnel bu xaw a yéeme tuuti boo xam ne dañu ko war a changer parce que depuis indépendance ba léegi même personnes yi ñoo ñëw voilà mën nañu wax sax ne éternel recommencement la parce que soit ñi fi nekkoon seeni doom biologique wala seen doom spirituel ñoo fi nekk di doxal li nga xam ne mooy nguur gi et loolu dafa war a jeex donc looloo waral ñu ne ñun nag euh, nañu présenté wu euh, ci élection présidentielle yi di ñëw euh, fas yéene changer donne bi fas yéene fexe ba indi lu bees parce que mën na nekk c'est une faisabilité mais nag dañ koy def ci tekk ak tey def ko ci yar def ko aussi ci wax dëgg def dëgg ak dox dëgg c'est ça le plus important en tout cas. waaw ci nit ñi d'abord parce que am nañu ressources humaines yoo xam ne fii ci Sénégal mën nañu suqali réew mi d'abord parce que ndaw ñi jeunesse bi. ku basé wu ci ñoom dañ la liggéeyal loo xam ne moom nga bëgg a liggéey parce que nangu nañoo jàng nangu nañoo liggéey mais aussi ku sukkandiku ci borom xam-xam yi nga xam ne nekk nañ fi nga def politique boo xam ne dina am suivi fexe ba euh, teg nit ñi les hommes qu'il faut à la place qu'il faut ba pare euh, accompagner leen ci manière boo xam ci façon boo xam ne daray politique du ko lal pour liggéeyal Sénégal rek lay nekk euh, waaye aussi sukkandiku ci li nga xam ne moom lañ am comme ressource

waaw ah, bien sûr xam nga téeméeri milliards yooyu euh, waxoon naa ci sax jamono yële euh, téeméeri milliards yàlla bu mu nekk ci wax rek yàlla nekk lu ñu indi mais suñ ko indee aussi yàlla na fekk ñu jox ko ñañ ko war a jox yàlla na fekk aussi ñu ñu ñu ñu séddale ko ci anam boo xam ne dina amal baykat yi njëriñ parce que souvent ay chiffres rek la ñuy joxe mais baykat bi nga xam ne mu ngi ci tool ba moom déggul dara gisul dara wala boog day day dégg rek ñeneen ñi di gis or ñiy gis ñoom sax euh, waruñoo gis parce que duñu ay baykat du duñu duñu duñu duñu ñu ay sàmmkat mais ay nit lañ yoo xam ne dañuy dox ci diggante gouvernement bi ak baykat yi nekk fa pour seen propre intérêt donc loolu il faut que gouvernement bi xoolaat politique boobu noonu te bi ma koy wax damay wax ne gouvernement bi dafa échoué lamentablement ci politique bi nga xam ne moom lay def ci politique agricole gouvernement Macky Sall bi daf ci échoué te tant que euh, euh, politique bu mbay mi euh, taxawul réew mi pour mu génn ci ndool dina jafe en tout cas ñun du nekk frein ci ñun parce que ñun de toute façon dinañ ko franchir njort nañ ko am nañ ci njortul rafet ci nit ñi par rapport ak ni nga xam ne moom lañ taxawoo euh, yaakaar bi nag moom yàlla lañ ko def mais njort nañ bu baax a baax ne dinañ ko jàll ñun incha allah taala te aussi euh, parrainage bi man jàpp naa ne bonul su fekkente ne su fekkente ne gouvernement bi utiliser wuñ ko pour caler euh, yenn yenn yenn kii parce que suñ ko defee fait ñu ngi lor sax askan wi ndax su fekkee askan wi dañu bëgg jiital nit koo xam ne jàpp nañ la ci moom lañ am yaakaar par ses valeurs par ses ñu ñu tere ko ñëw or ta nga xam bu nekkoon ne yex na ci réew mi euh, jité ko mëna indi coppite gu rëy gu am solo ñu tere ko duggu ci euh, élection yi vraiment euh gouvernement bu ko def lorna li nga xam moy population sénégalaise mais population bopom bi té toute toute l'actualité à temps réel à temps réel sur Référence TV Référence TV la chaîne de l'innovation.